laajee kanay Cheikhul Xaaji Malick te Alaaji Mansuur ndax nag Alaaji Malick a amoon njaboot ku ci ne moom fu la dégg bi Cheikhul Xaaji Malick amee doom muy Serigne Babacar Sy mu barki démboo Njaay mi nga xam moom lañ doon def anniversaire am barki démb dañ ko laajee Serigne Babacar mii di sa doom koo ko jox mu ne kii maa ko séddee Cheikhu Tidiane Chérif te bi lay dëgg ko xool Serigne Babacar li ma am ci Cheikh da ngay xam ni billaay ko Alaaji Malick Sy di jël moo am doom muy Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh borom di jaaw bu rafet ñu ne ko ah, Maodo kii nag mu ne kii maa ko séddee Seydina Mouhamed waaw mbokk yi dëgg ku xool Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh xool Seydina Mouhamed xam ne Alaaji Abdoul am na ci yeneen bi dara waay waaye nag moo am doom muy Alxaaji Mansour bal xaw inspecteur u tarixa nitu yàlla wa ñu ne ko ah, Maodo sa doom ji rek yàlla ñu mu ne kii moom maa ko séddee sama bopp billaay maa ko séddee sama boppam boobu moo ko topp topp ko ba keroog bi mu faatoo muy bëccëgam gii keroog topp na ko ci bi ñu jëlee alxaaji Mansour ba ko suul ci biir Tiwaawam fu ñu dem ci biir Tiwaawam mun ñu ko fa suul benn góor a ñëw fekk nit ñi di wër fu ñu suul Alaaji Mansuur ndax fu ñu suul mu rattax ban fu ñu gas rek mu doon ban ndox di fa génn góor gi ñëw ne leen dal leen ah da ngeen a fàtte li bàyyam waxoon ñu ne ko waaw lu bàyyi waxoon mooy da ngeen a fàtte bàyyam ne woon na Mansuur sama wet rek si ma ko séddee sama bopp eh xam ngeen ni Mansuur mi du tëdd ko doon jotu bàyyi loolu tax nga dégg borom ñaari bàmmeel ñaari bàmmeel yooyu nag. nga xamante ni góor ga ñu uufal baayam boobu ngay dégg la tax ñu uufal ko baayam mooy da di baayam moo tax man la ku waxtaane Cheikhul Hadj Malick waxtaane nga Alaaji Mansour ku waxtaane Alaaji Mansour waxtaane nga Cheikhul Hadj Malick eh góor googu di Cheikhul Hadj Malick Babacar na nga ni mooy Seydil Hadj Mansour sëñ Mansour bal xaw mi ko amoon yàlla ku amoon yonent bi am yàllaam nag demoon na ba yóbbu ko ci Alaaji Mansuur ah, ni baayam daan def la daan def dem na ba bariwul lekk Alaaji Mansuur bariwul naan Alaaji Mansuur dem na ba daawul dem ci biir nit ñi ngir lan wéetal borom heure bu xëyee di waxtaan ak borom xasidaam gu réy googu ayaa xaaliqi inni ilayka faqir atuubu wa arda maa qadayta jëf digal wax ñu yooyu koy wax sa borom xam nga ni yegg nga lañ mën su dafa yeggoon Babacar te gis nga nitu yàlla balaa ñu naan askan nitu yàlla nga jóg yàlla tey la ñuy xëy rek ku naan ñu ne ñu naan la nitu yàlla est-ce nga ko yàlla ji suur dafa yeggoon ci wàllu yàlla ba jeexoon tàkk ba fii ci paate xew wane ko fi wane na ko fi dafa am benn tool boo xam dañ ko tuddee woon bay dee tool bi ku ko bay da dee parce que ay jinne dina nga woon nañ ko tool bi ku fa mas a jaar bay da ngaa ba tool bi noonu lañ ko raafalee ñëpp bàyyi ko alaaj Mansour ñëw baate xel ñaan ko gouverneur gouverneur na ko tool bi ku bay dee de <laughs> ñu ne ko ah góor gi de moo koy ñaan alaaj Mansour nee na ñu may ko mu bay foofu mu daa ah, jox la ñu jox alaaj Mansour alaaj Mansour ak taalibe alaaj Mansour ak taalibe alaaj Mansour ba mu ba mu góob la mu ko bayoon balaa ñu mën suuf séddale la muy séddale dem ci gouverneur dem ci gouverneur di ko gërëm mu ñëwee gouverneur moom yow yaa ngi dund ba léegi yow deewe ko dem déet lan nga yàq mu ne ko a fii ko fi masa bay dafay dee de laaj mën su ne ko may al xalima ak ma wax la gouverneur jox ko mu ne ko afil basiite gayra allahi maabuud fi lxaqi fi laaj ndax keneen ku dul yàlla dafay def damay laaj na kuy rayee ku dul yàlla dafay am mooy li ma la wax gis nga nitu yàlla balaa ñu laa nitu yàlla day fekk nga jubóog yàlla Alaaji Mansuur premièrement ki ñëpp war a daw jubóol mooy yàlla Alaaji Mansuur amoon na yàlla muy benn beneen bi mooy Alxaaji Mansuur ku amoon yonent bi mooy ñaareel Alaaji Mansuur ku am Sayyiduna Muhammad la yi ko firndeel bari na na benn góor goo xam ne daan liggéey lu bari ci salaatu al salaatal faati ci yonent bi lu bari daan def lim bu takk ngir xam nga lan dafa bëggoon a gis yonent bi te dégg nañu ne Babacar ku bëgg a gis yonent bi dana bëri lay julli loolu moom wér na ku bëgg a gis yonent bi bëri lay julli ci moom léegi gi nag di julli ci yonent lim bu takk mm-hmm. bëgg a gis yonent bi mais julli ba sonn gisul mu ñëw fekk mu Mansour toog mu ne ko bal xaw man daal benn yitte laa mu ne ko lal mu ne ko yonent bi laa maa ngi def temps ci lim ci sa salaatu bu ne ko def suba xëyee dinaa ko def lañ ma a gis yonent bi mu ne ne ko def ci vingt cinq vingt cinq laa fukk ñaar fukk juróom nga def ci vingt cinq rek salaatu ala dem góor gi def vingt cinq rek yuuxu ne ko allahu akbar mi ngi nii donc loo ciy dégg intellectuel sam te ku juboo woon ak Seydina Muhammad la moo tax daan na wax ni maanaam bi ma ñëwee ci raw doom moom rasulullah yi mu ci quarante quatre ans dem na ziyaare ci Seydina Muhammad demen mu doy waar ñëw wax fa xasida gu rëy xasida googu nga xam ni ñi tagg Seydina Muhammad ñu bari ci tànk balaa ñoo daaneel faaw ñu weeku ko defee ci rawdu rasulullah nee na ba ma ñëwee ci rawdu bi man daal dama sentir ne la ma doon wër ci àdduna jot naa ci te mooy janoog Seydina Muhammad mu wax ci wax yu doy waar yamu ca wax ne sama safaraw cofeel mooy lakk ñi ma toogee ci raw bi ngir lan li ma sopp Seydina Muhammad ci la daw ba ci yàgg naan ko anaxtu jima la saw yësal naa sama gëleemu cofeel ci sa raw du yow Seydina Muhammad ngir sàkku li ma soxla ci wàllu yàlla wàllu dem ci côté yàlla yëpp ma am mais xam naa ne fii laa koy amee saxoon moo tax muy jógee màkkatal mu karam bi ñu bis El Hadj Mansour topp ni ko dafa fekk mu yegg moo tax euh, bokkul woon ci biir liñ naan sëriñ si avant loolu ñu xam ko nag waaw bokkul woon ci biir sëriñ si biir ay ñaanam ñaan na ma laaj mën nekk yàlla maa ngi lay ñaan sax xaj Abdou Aziz sama rakk lu ma nar a ci at def ko ci xalifa gi yàlla ko may ba pare wëlbati ko ne alaaj alaajam ñaan naa yàlla ba nangul na ma li ma waroon a toog ak li ngay toog di nga ma keroog bi sëriñ Babacar génne àdduna ñetti fan barki dem loon si Babacar day laaj mën fu waaw vingt cinq vingt neuf ba tax ñetti fan laa wax ndax moom moo jox Alaaji Abdoulaye ne ko ñaan naa yàlla ba d'accordal na ma li ma waroon def ci xalifa gi ak li nga war a def bi nga ko boole defal sama wàll ak sa wàll ngir lan mu ne ko xam naa ni nga mel ci jukku xam naa ni nga mën a jëflanteeg nit ñi xam naa ni nga mën a duggee ci biir nit ñi man man su ma nee woon noonu weer bu jëlal dafa Alaaji Abdu rek moo dund 40 ans laa wax ci xalifa xalifa 40 ans da ko gis de xalifa 40 ans waaw parce que Alaaji Abdu ñaar la rek waaw ñu bàyyi xel loolu dafa yóbbaale bi sax laaj Mansour ndax laaj Mansour ne maa ko ñaan yàlla ba yàlla d'accord ma mu xëy joxol ko àllaaje da ko yàlla nangul na sama wàll sa wàll jëm ko moo tax ak xalifaam bokk ci xalifa yi nga xam ni ne maanaam euh, kenn mënu ko nettali Sénégal parce que ñaari xalifa la ko dafa woon xalifa Alaaji Mansour yore ba sa moom Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo tax xalifaam gën a doy waar ci xalifa moo tax mbokk yi nitu yàlla bu màgg tey la ñu tey moom moom del bisam del si waat ah euh, nit yàlla ba rek daf ne woon day leen tudd nit ñu baax ñu ne ko tax mu ne leen may yërmande yàlla dooteeku seen kaw mais rawatina ñu nekk ci fukk yi nga xam yërmande la waaw ah, la yàlla ma way ne da leen tudd nit ñu baax ñu ne ko tax mu ne leen may yërmande yàlla dooteeku seen kaw waaw mbokk yi ñu nekk ci fukk yi nga xam ne yàlla nee na fukk yi ngeen nekk ci weer yi yërmande la yonent bi ne awalu rahma fukk yi yërmande la ñu ciy tudd nit ku baax ku mel ne mën Hadj Mansour barki bii moo jaay ñu tudd ci nit ku baax ku mel ne Serigne Babacar. eh dañoo am yaakaar ne fukk yi tudd yërmande sunu borom danañu ko séddale ñun ñëpp maa ngi ñaan bu ñu koy séddale téléspectateurs yi janoog man yàlla bu leen ci seen ëppali ci barke Seydil Wujudi sallallahu alayhi wa sallam Babacar xanaa ma delloowaat kàddu gi tabarakallah ci eh, eh, ni nga xam ne noonu lañ ma ko ñaane woon maa ngi leeral tuuti ci El Hadj Mansour parce que bis bi dafa yaatu kenn ku ci nekk mën na ma nga cay wax mm-hmm. waaye ñu mm-hmm. ñaan suma borom nag yal na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla taas ñu ci barkeem ba mbooleem mbooleem yiw ya nga xam ne liggéeyoon na ko ci xadara maam Cheikh Hadj Malick yal na ko yàlla doot suñu kaw parce que nag ku liggéey ci xadara bi la mm-hmm. ku liggéey ci kër maamam la ndax euh, bu ñu demee ba xam si biir Hadj Malick grâce ak Hadj parce que moom nee na sama baay dama waaw parce que fekk ñaari góor di werante ko yàllaa ji maa mu leen maa ko xam yéen ñëpp xamoo leen ko man maa ko xam moo li mu bind ci Cheikhul Xaaji Malick kenn bind li mu wax ci baayam kenn wax nee na ci biir xasiraan boo ko ca wax ni jaadu sant baay bu mel ni àllaaji Malick ci biir afil basira bi fa la waxee na ñu sant bu amee man na alayna bi cheikhin walidin rahim baay boo xam ne sëriñ la baay boo xam ne daa bari bëri yërmande baay boo xam ne daa baax baay boo xam ne daa bëri taraanga baay bu la defar ba nga gën say morom kon fardun alal ibni shukrul walidayn te anta walidul bar yaa ustaadu si moo wax bay mam Cheikhul Xaaji Malik lu ko kenn waxul moo tax ma ne la ko waxtaanee waxtaanee Cheikhul Xaaji Malik kon maa ngi ñaan sama borom yal na yàlla tas ci barkeem asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh